Euh, ci lu gàtt rek jox leen benn explication benn définition ci 133 13 bi c'est de chiffre qui porte malheur 13 bi bu ngeen dugg ci avion place amul amul benn étage building boo xam ne étage numéro 13 am na saxaar gi place amul 13 bi dañ koo band li tax ñu bànd ko nag explication bi xaju si mais ay rappel la ay rappel mémoire yu doy waar la yu doy waar treize bi mooy le premier mars le premier mars mooy début d'année franc-maçon yi trois bi mu ci teg muy cent trente-trois bi mooy le triangle maçonnique le triangle maçonnique kon cent trente-trois yi daanaka ab sarax la wala muy leneen loo xam ne yeneen secret yu ma xamul la ndax ñoom seen code yëpp ay secret la cent trente trois détenus yii euh, maanaam sonn nañ euh, da jël doomu aadama di ko toroxal ku la deful dara ngay saw ci koom ku la deful dara ngay tàngal xol bi maanaam euh, yëf yi bono bono bon lañ ciy def yoo xam ne ñoom ñi ci jublu di ko def xam nañ ko treize ba tey boo gisoon lap foo lap foo lap foo boo ko déggee comme par exemple xowaan ci coronavirus bi lafo bi nekkoon xawaan gis ngeen ko laf lafo yi nekk man laf lafo mooy laboratoire yi nga xam ne dañ ko mettre en sécurisé dañ ko sécuriser parce que ca treize ba lañ ko jëlee trois plus un égale quatre njël jël quatre tout daf ko lafo waaw nga xam ne yu grave yëpp fa lañ koy denc kon mag Macky bu jëlee trois plus un bi quatre la koy jox muy sécurité mu daw dellusiwaat ci trois bi mu jox ko le euh, le triangle maçonnique waaw kii ku dangereux la ku dangereux la codification la boo xam ne ah su ngeen toogee gëstu ko seet akuk dal ah da xam ne cent trente cent trois détenus yi ah ab sarax la ab sarax bu day waar sax waaye yàlla na leen yàlla jox seen bakkan yàlla nañ génn ci jàmm yàlla nañ génn ci jàmm dellusiwaat ci seenu askan te ni góor góor nag di jéem a xam nu rek nekkuñu ci planète bi waxtaan bi dañ koo bokk ak ay nit bokk ak borom yi xam-xam foog na woon ñu ko aussi jéem seet nii nu ñuy defe pour nu buñ defewul noonu def suñu yëfi bopp suñu maam yi daan gisaane ñu dikki jëlee ko ci sa loxo kenn mënatu kenn dootu def kenn boo ko defee ñu la araam na te naar yi dañu koy gëstu naar yi am ciy gëstu bu baax a baax a baax waaw noonu dong la demee le 133 bii daal xam leen ne ab sarax la yàlla nit ñi yàlla jox seen bakkan ba mu génn jàmm waaw kon ñu def noonu rek yàlla na bur yàlla def jàmm tey nag ten góorgóorlu nag kan góorgóorlu ndax alxuraan lépp lay fekk alxuraan lépp la man dañoo nelaw dañoo nelaw mais sur faatiye képp faatiye képp buñ ci yemoon ak naas yi ba naas yi doy na sëkk pour ñu mën a aar suñu bopp kon maa ngi ziyaara bu baax a baax a baax te xam ne àdduna bi ñu ko séqal ay saay-saay lañ ay saay-saay dëgg lañ ay kon jóg suñu bopp day dagan 133 détenus yi moom 133 détenus yi euh, bu ñu jullee àjjuma bala ngeen génn jàkka ji ne leen bokk ñaanal ne leen bokk ñaanal ba ndil ci seeni bokk kon asalaamaaleykum man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences yal nañ buur yàlla sutural yal nañ buur yàlla sutural te ñii nu bedd ko suñu doom yi nu bedd ko dugg ci ay loxori franc-maçon yàlla na ci yàlla génne ba ndil siwaat ci lislaam ànd ak nun nu bokk jaamu yàlla asalaamaaleykum